alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk ñu dellusiwaat ci 2376 ci ndigalul borom bi tey di juróom-ñeenti fan ci mille quatre cent quarante six wamsasin hijriya lu toll woon ci nettali nag gàddaay gi waaye tey jii di tam xarit nag am ay laaj yu mbokk yi laaj ci euh, lu mel ni taajuboon bii ñuy wax ñu ni ndongo daare yi ñoo ko daa def ndax nii lañ ko doon defee ak ñu tënkal ñu daal lenn ci ay njariñ yu am solo yu ñuy def ci bis bi te mu dëppoo ak sunna ak yeneen eh, càkkuteef mbokk yi eh, jëm xarit eh, ku na xam ne ni baatu wolof la waaye muy dajeek fukkeelu fan ci at mi kon nekkul ni suba ci fukkeel bi mooy benn fanu at mi déedéet at mi teru na altine ba altine del si démb tey di talaata di juróom-ñeenteel boo musaa dégg ñu naa reeral ba suur de boo suurul bala ngaa suur di déwén bala ngaa reggaat di déwén tax xale yi daa lekk lu baree bari loolu waxin la mooy boo fekkee ni mooy bis bi mujj ci at mi daal nga ciy reer mooy lekk ngay mujj lekk ci at mii boo ci suurul kon bala ngaa lekkaat ci at mu bees ma la te suba la loolu yàggul donte demuwul noonu nag kon eh, yonent bi kay a ah, saaba yi laaj nañ ko mu wax ay ngëneel yoo xam ni ginnaaw bu mbokkee ci ñeenti weer yàlla jox ay daraja moom weeru muharram muy tamxarit wi amaat na ci biir weer wi ci fan yu jëkk yi ay jagle boppam rawatina fukkeel bi muy suba bu leen tarde ngir woor ko mukk mukk ngir yàlla ye eh, ye ca xewoon bu yàgg tàmbalee ko ca aadama alayhi salaatu wasalaam ba isa mi mujj ci ulul asmi ulul asmi nga xam ni eh, bi yonent bi ñëwee ci la ak nubuwa waaye tàmbale ca aadama ba ci isa daal mi jiit yonent bi yonent bi soo ñëw am na ay yonent yoo xam ni buñ ca mën a ñëw dañ ci ñëw ak yeneen yu bari yu yont bu wax ci ni bis boobu ci la xewe woon lu tax yàlla dajale yu bari yooyu ci bis boobu waaye daal nun moom nan fexe ba lu ñu ni événement la bu ñëwee nun jullit ñi euh, nan ko jàppee benn taxi bagage bu ñëw di la jëlal say bagage nga sëf ko ba mu gis gan gan gan ci ay jaamu yàlla ci lan jariñ sa moroomu nit ci lan ci tudd yàlla lu bari ci lan def ay yëngu ngir sa yaram jaamu yàlla ci bis boobu lu ñu ne lu baax la loo ca man rek def ko fekk génnul cadrewul islaam fekk génnul cadrewul islaam alaa waaw kon euh, <coughs> yàq gi nag moom nañ ko moytu yàq gi ak euh, naan boole naan ak lekk loo xam ni waroo leen a boole nañ ko moytu nañ ko moytu def ci dépense bi loo xam ni wax dëgg yàlla ëpp na te danga koy soxlawaat suba wala nga lebi ko loolu nañ ko moytu mbokk ko moytu ndax diw def na ko danaa ko def tey la tam xarit nii lañ koy defee ndeysaan ndekete gis naa jigéen ñoo xam ne moom ñi ngi sëy ba am doom te mënuñoo mooñ waaw ndeysaan benn soxna maa ngi ko gis mu naa man de xawma ren ji ku may mooñal ndax moom ma daa mën a mooñ lool nag waaye dafa dafa dafa tawat ma dégg kenn ki ne ko waaw diw mënut a mooñ ak diw pourtant ñooñu ay jéeg lañu de mënu ko mooñ sëñ bu bokki nag eh, ku mënut a mooñ xam naa xanaa da ngay kon jënd cere wala nga defarlu ko wala nga mooñ lu wala lépp bañ la caa fekk léegi ginnaaw boo may xaalis daal ngént sax bu la neexee doo togg waaye jigéen daal suñ bi bu fekkee na moom euh, bu munta mooñ est-ce que dana mën a fóot est-ce que dana mën a fóot waaw bu munta mooñ est-ce que dana mën a togg togg yépp togg gu jaar yoon boo gisee cere yi liñ ciy def ngir mu neex ci put léeg-léeg nga gis ci cere joo xam ni doom ba doom ba du normal ñi xam ak mooñ xam nañ lan mooy doomu cere gis cere yoo xam ni boo ko boo ko boo ko ñemee du saf cere dañ cey boole ci suukar saak tàndarma yaag nees kafe man yiñ ma ni lañ ci boole yëpp yëpp yëpp yooyu wërta ànd mbokk yi ci benn biir cere ju doon pat cere kay man dañ ko war a mën a jëri boo ko tibbee nii man koo jëri fepp par fepp waaye def ko ba mu nekk benn pat mel ni boulangerie yi bu defar fariñam ba di ko bëgg a dugal ci eh, fij yi kii euh, nan xool yi ñuy def bu baax a baax a baax a baax baax loolu bari na ñoo xam ne tey jii moom euh, julli timis ca waxtu waa ak gee moom bokkul seen affaire ndax tey la tam xarit waaye waaye Sénégal ngay gis ñëw ci buntu jumaa ji buntu jàkka ji ñii da tànt ngir def leetul xadri da tànt ngir def ak cant da ngay tànt ngir siyaare ngir gàmmu gi wala nangam waa jàkka ji di li yow nga ne ca baas ba yaa ngay baas de la ngay def moom bokkul ci farata yi bokkul ci sunna yi bëggu-bëggu doomu aadama yi ñu koy def rek tudde ko cent walla nangam waaw li nga xay mooy farata ah ñëw fekk la ci sa wet ci dugg ci jàkka ji di ko def léeg-léeg sax dañuy génn ji jàkka ji ni waa baas bi dimbali leen bay wàññi leen coow li ba ñu noppi ña seen liggéey ñoom loolu am na senegal gi rak waaye ginnaaw eh, eh, jigéen ñuy làng-làng ba fajar ñu romb leen ci jàkk ji jullite gee fa nga leen bàyyi woon loolu gis naa ko fii gis naa ko fii suñ digg daal suñ bëgg-bëgg daal noonu daal buñ ci àggee du ko def daal duñu xàmmeeti ni ay jullit lañu day feeñ ci lépp nag yàq gi daal bu tam jàllee day gis ni léegi yàq gi ci ñam wi bari na trop trop docteur li wax nañ ba sonn ci yi nga xam ni bu nit ki lekkee ba noppi moom la ci war a teg waaye cere ju pate ju mel noonu nga noppi teg ci say jus yu sedd sa nangam ah dégg laa benn docteur di nee la ku ci teg ataay weef wala lu mel ni was ak yu mel noonu waaw bu dee nag jëmmi ah, gàddaay gi den ci ñëwaat ndax dafa am solo ndax jot nañoo nekk di ba alayhi salaam jub nag madinatul munawara ba euh, ndaw ñi ak jigéen ñi ak am wér ñëpp génne di def talaal badru alayna ci leer gu jolli ñëw ci ñoom ñu yàkkamti ko doonte waa Màkka ñu ngi ko doon fuglu waaye bañ ñëwee ginaaw dañoo biddanti fekk seen bopp yi suuf nekk ci ñu tëpp fukk mbëkk bunt bi fekk ci mbalaanam ma am na ku ko sangoo ñu defe ni moom seen affaire baax na ñu ni ko munet fekk muy àll yi yaa ñu daal di am déception àll yi tamit ndaw la woon waaye booba xam nga ni dafa déggal kilifa dansé bu toll noonu mu ñi ma ko dékku voilà euh, njaboot da nga ko yar ko yar ba loo ko sant rek nan nga ko sant dana ko jéem a defe loolu alaa kulli Babacar yar ay doomam ay njabootam ba secret bi feeñul fenn fenn fenn ku def la nga war def ci doom yu góor yi ak ak doom yu jigéen gis nga ko kon dañ ñëwaat akay ah, aleyhi salaatu wa bañ ko laajee ñu ko yaa rasulullah yàlla lay yi mu jagleel asora xanaa kon moo gën ci bis yëpp ba mu leen ne waaw day ndax ci la bind asamaan juróom-ñaar ci la bind doj yeeg nangam nangam yu bari yooyu ma waxan keroog waaye yëmu ca ah, xalam ak euh, xalim bi ak alwa ji muy ci la ñu ko bind waaye aadama gis nga ko ci la ko sàkk ci la ko dugal aljana ci bisub asura suba bi mu leen ci la ibrahima alayhi juddu waaye ci la ko musale ci sawara wi ah ci la juddu ba pare ci ko namrood taale taal bu boobu nga xam ne lu ko tiim ci njanaaw rek tàbbi dox diggam ak asamaan loo ko sori sori tàbbi ci ndax tàngoor nga dugal ca nit ni yow ndax lan dañuy yàllaa ma yónni dañuy jaamu leen yàlla te bay yaal yi jaamu leen yàlla bay yaal yi yàlla musal ko ci bis boobu la wan gis nga ko eh, ak yeneen yoo xam ni mooy firaw na noon bu réy bi nga xam ni aman doole lool Moussa di woote mun ko doo ko fi wootee tañ-tañal ko ak ñi gëma na ku néew ànd ak Moussa ak seen jurgo ñëw di daw firawna yëg ko ñëw di leen dàq ñëw ba sës ci tef tefesu géej gi ah gaa yi ni ko Moussa tey nu alko feraw naa ngi ñëw géej gaa ngi nii Moussa nun fu nu jëm Moussa dëkk ay loxo boroomam boroom jox ko ndigal ni ko eh, dóoral yet wi ci géej gi musaa dóor ko foofa doon aw xàll wu yaatu mbedd moo xam ni suuf la ñoom ñu jaar ca bu mucc firaw na lab ci ak i gaayam donte moom moo ci mujj faatu waaye gis nga ko ayoba amoon ay jaam ay taalube ay jabar ak jur alal ju bari mbooloo mu gëm yàlla lool nag tawxiid ji yéeme lool iblis ña su yow yàlla day sa jaam bi la ba li nga ko defal koo ko defal mu mu mu mu gëm la kat ah wér gi mbooloo mi lépp man de boo ma boo ma boo moom de kaaraange lu koy aar ba du du ma mën a àgg ci moom boo ko génnee dinaa ko génne ci ngëm yàlla gi yàlla ni ko bisimilah mu soppaliku jàngoro def ngelaw dugg ci ayoba ayoba mujj euh, fukki at ak juróom-ñett ñenn ci ci liñ wax te duna ko yaram wi dafi sax jabar yëpp dem bam mu benn jabar mujj ñu waa dëkk bi nag mu ñëw dëkk ak ay ak ak ayoba génne ko mu génne ko ci àll ba kër ga tas alal ji yëpp jeex waaye muy jaamu boroomam di jaamu boroomam bisu tam xarit jot rek suñu moom daal koy wéral seet loolu mbokk yi Daawuda dañ ne amoon na lu mu defal loo xam ni war na ko jégglu boroomam mu di ko jégglu nag yàlla bàyyi ba tam xarit mun ko jéggal naa la ñu dem ba yontu yàlla Isaa war juddu yàlla bàyyi ba tam xarit yontu juddu kon loolu bokkul ak nag ci weeru décembre wi ñu ko dàkk ñoom ndax léeg-léeg fi ñu toll nii euh, mën nañoo dem ba événement 24 décembre dajeeg bisub tabaski waaw mën nañu dem ba 24 euh, décembre dajeeg bisub mawlut jullit ñi tey la Mohamed juddu chrétien nii tey tey ji la Isa judd ndax ñaari weer yi moo tax erreur la ci koo xam ne sa jaamu yàlla yi nga war def ci weeru jullit yaa ngi koy def ci weeru tubaab muy asaka téñ yi iddawu ak yu mel noonu gis nga ko moo tax ci bis bii ay ngëneelam ibnu abbas radiyallahu anhuma wax ni ku tedd ki nee na ku ci woor bis bii di yow ma asura muy suba ci talaata ci ci àllarba ci nee yàlla bindal ko jaamu yàlla ñaari at yoo xëy da koo woor waaye da doon naafi ku ci woor Euh, bis boobu yàlla jox ko yoolu junni ñu shahid ñoo xam dañoo martir ci lislaam dañoo shahid ci lislaam xeex ci lislaam ba faatu ku ko woor yàlla euh, bindal ko yoolu ahlu sab asamawaatin juróom-ñaari asamaan yi seen ñoñ mu ni ku ci jox ku woor mu dog lay mel ni euh, dogal jox nga xeetu Muhammad ñoom ñëpp ñu dog nga jox leen ñu lekk ba suur seen biir fees ku ci laay bopp jirim ci yow ma asura ñu defal ko ci limu mu kawar yenn ca bopp ba eh, daraja yi toll ci aljana gis nga Omar ni yaa rasulullah ah, laqad na allahu taala bi yow asura de yàlla kat kon defal na ni gënal ci yow asura asalaam ne ko waaw daal di répété ci la bind asamaan suufit gis nga ko doj yeeg biddiw yi ci la bind arsh kursi law xalam mu ngi ci la bind jibril ci la bind malaayika yi lii wax nag boo demee ci xunñe daan ko ci fekk de xunñe boo demee fekk ci loolu de ci la fekk adama ci la ibrahima juddu ci la ko musale ci sawara wa ci la ci la ci la ci la gis nga ko léegi nag kon euh, jàng junub lixlaas bi bu jant xisee so rek mën nga ko tàmbali te mbokk yi niñ koy jànge mu gaaw de man la dama jaaxal dangay gis ku ñëw ñii day jàng junub lixlaas mi ngi jàkkaarloog télé bi di seetaan lu muy seetaan xam nga man ngaa seetaan sax fekk la ngay seetaan ak jaamu yàlla la macha allah ndax am na nuñ koy defee waaye di seetaan ay caaxaan ki théâtre ki tiktok yoo xam ni njaxas la walla njàng mi gaaw lool nga xam ni yow eh, wax dëgg yàlla lixlaas ñëpp ko mokkal jullit yëpp que waaye angeem juróomi téeméer moom noppi na bu yàgg gis naa ko man gis naa lool mu jaaxal ma lool jumlu man damaa yeex nag ndax fi mu toll nii buñ ne bu ñuy denc ab néew nii Euh, nañ def ñeent fukki lixlaas ak benn su may am ñaar fukki rek am ñoo xëy noppi nañu ñaar fukki yi te kat damay baral la ma man daal loolu jaaxal na ma alakulaal kon euh, ci addis bi ci mu ni euh, waman sala arbaa rakaatin ku julli ñeent rakka ci bisu asora mu jàng ci bu ne faatiha benn yoon faatiha benn yoon xul eh, ko ay bàkkaaram fukki at yi ak juróom yi mu dëng man waaw ni ku julli yow mu asora ñeenti rakka ci ñaari sëlmal mu jàngi bu ne faati at kitaab benn yoon isal su eh, benn yoon xuleel kaafiruuna benn yoon xul huwallaahu ahad benn yoon mu julli yonte bi juróom ñaar fukki yoon loolu wax na ci ingëneel yu daa mel waxtu damaa dab nag kon noo ngi foofu daal saraxe yaag yëpp nañ ci góorgóorlu seeti ku woppook yëpp seeti boroom xam-xam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sirali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني